asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ndigalul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa sëriñ Salihu mbake yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér alhaaji Daouda sek moom sëriñ Salihu mooy am mbégte di sant sëriñam sëriñ Cheikh Ahmadou mbake mu sëriñ Salihu di ko ñaanal sun borom may ko fan wu gudd lool wa ànd ak wér gu yaram waaye nag di soññi boppam di soññi mbooleem taalibe yi ci liggéey bi nga xam ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Salihu woote na ko te boole ko ci liggéey boobu te mooy ngóobum xel koom départ bi wala nekk ajjuma le 25 octobre alaaji daawuda sekk nag nee na ginnaaw bu mu soññee boppam ba noppi mi ngi leen di mi ngi soññ mbooleem ko xam ne yaa ngi ànd ak moom ci ab liggéey wala muy sa xarit wala muy sa wëlëre wala muy sa soppe wala ngeen bokk sax ak bëgg mu lay xama ne liggéey bi daal ndabul xéewal la lu rëy loo xam ne Serigne Cheikh taajal na ko ci seen kanam te bu sañoon moog yéen ñoo koy bokk kon nag nee na mi ngi soññ ñëpp di soññ mboolem ay xaritam di leen jox rendez-vous le vingt cinq di ajuma vingt cinq octobre deux mille vingt quatre ci xel Xelkom boobee di ñaan nag képp ku fa teg sa tànk wala nga wuy si ko ngir jëmi Serigne Saliou lépp loo xam ne Serigne Touba dig na ko ku ko liggéeyal yal na yàlla tàbbal la ca loolee barakati Cheikhuna Ahmadul Khadim ajuma le vingt cinq octobre deux mille vingt quatre ngóob maa xel Xelkom góob dugub ja dajale ko def ko ay jaag talal suñuy loxo Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mu Serigne Saliou mu ñaan nañu ci barkeb Serigne Saliou suñuy aajo fajo àdduna ak jooj alaxira loolu la Alaaji Daawuda Seck di woote di ci woo xaritam yëpp ak soppeem yëpp di ñaanalaat sëriñam Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mu Serigne Saliou suñ borom gën ko fee yàggal gën a dolli ak wéram wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu